salaamaaleykum waa Sénégal waa monde entier ñi affaire bi laal waaw ñi affaire bu laalagul ñu teel a fagaru rek mais maa ngi gërëm ñi affaire bi laal ñëpp dina ñaanal tam dina ñaanal wér waaw di ñaanal monsieur le président bu fekkee damay dóor président bu yoree añam naka téye mais du xeetu dóor lii dafa nekk loo xam ne àdduna ñu ñëpp ñooy présenté wu pour wax li askan bi bëgg wala non waaw dañuy wax lu askan bi bëgg quoi ndax président moom moo njëkk njëkkee ci woon nit ñi ñu fekk ko pale kon dafa bëgg ànd ak nit ñi ndax nit ñi liggéey yaa ngi dégg ñu jéem a daan coronavirus daan ko jël bu kenn dul werante waaw waa sénégal nag bëgg naa leen ñëpp monde entier bëgg naa leen ñëpp ñi fi nekk ak ñi corona bi laal ak ñum laalu la ñum laalu yàlla yàlla ñuy dégg corona bi rek ñum laal yàlla la yàlla may tànn waaw di wax nag oh, ci kii kii nii ci jaat tur bi sax dama ko dama koy xaw a ndax caat dafa amul respect yaa ngi gis yow caat yow laay defé caat yow amul cër bo amul cër li to ni paré paré ñaat nit ñoo mag ba to ni ñu to nek ay kilifa dama suñu dugg paré yow ñu dugal la paré ngay jema xex suñu président di jema togué no xamné melni ne mel ni ko ko nawluwul yow caat yow da nga yabaate wóor na mam Serap Fall yow caat maa la wax li yow da nga yabaate amul cër yaa ngi dëkk yow yaa ngi dëkk Kaolack loo fa def la nee nañ yaanaamaar yaanaamaar pour lan lan mooy yana mar yana dañ di war a gis suñ bopp mais yéen da ngeen di ràcc jëmale seen kanam rek bàyyi ngeen di def yooyu baaxul waaw ndax loolu bu baaxul ñëpp fekk si leen chaque jour ngeen déglu nit ñi dina xasar da ngeen da ngeen war a nekk ci loo xam ne askan bi moom la bëgg waaw bu leen nekk seen bopp kese di ràcc jëmale seen kanam def leen man su waaye li askan bi soxla ngeen wax loolu noonu yaa ngi dégg waaw président bi di ñaanal lii mu sumb waaw mu set ak jàmm ak salaam war na mam si rafaal waaw kan kan eh, di ko ñaanal mu xeex xeex bii nii waaw ñu gañe ko si jàmm ak salaam yaa ngi dégg amal ay dara ci yow laay ñëw amal ay dara yow ay jamono amoon nga cër mais léegi sa cër dafa dañ lu tax lool xaalis bi nga dugg si yow waaw xeexu géej waay yi terrain yi nga doon xeex yaa ngi ci doon wax dégg duñ la si terrain yi nga doon wax naan xaw ma géej waay xanaa dañu si dox terrain ay amal ay dara bàyyi di xasal nit ñi maa wax ak yéen c'est la première fois ma wax nag pour ngeen dégg da ngeen di yam yéen ñëpp ay tàppin ngeen amu leen fit ba pare man sumaay da ngeen di wax loo xam ne da ngeen di lëndëmal xelum nit ñi loolu baaxul loolu baaxul da ngeen war a jàppale instant bii nii président ñi mu ànd loolu wax yi ñëpp ñun pour ñu xeex feebar bii nii a xeex feebar bii nii duñ ko xeexee ba pare après yéen loolu leen wax ngeen wax ko seen biir man mosuma leen lijjanti mais feebar bii moo tax ma wax ndax feebar bi dañ ko war a jëlee mais nañ jàppale ko Sall mu jëlee fi feebar bii nii loolu man sumaay ndax na ci moom mooy wal yéen la ngeen bëgg nekk fii di wax ay waxu naa sa xantan nit ñi di leen déglu nit ñi tamit man su di am neneen li ñuy waxee ngeen jëmal ndëbal xelu askan mi loolu duñ ko nangu doon def ni balagay balagay dafa yëngu xaalisam bu bëri def ci corona la guerre ñoom ñëpp ak nit ñu ñëpp ñi ma xamul ñëpp ñu ngi préparé man su pour indi xeex ak corona yaa ngi dégg dafa noonu ngeen bàyyi wax yi waaw bu loolu weesoo tamit sumbulu il faut ma ñëw ci kawam sumbulu président boo nee nitu ay nitu ay nitu àll président li nitu fan la fan la soppee ko Fatick ah ñoom Aly Ngouille Ndiaye ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen fan lañ soppee ko fan lañ jógee ba ñëw Dakar fii nii dañoo wax ndax ñii li ma li ñuy li ñuy wax moo woon naqari maa ngi di ñàkk sax yaa ngi gis bari ñu ngeen def yi baaxul yow sumbul sumbul yow yow lan ngaa yow man maa ngi yaakaaroon ne Guinée nga xaw ma Malien yow sumbulu sa xeesal bu mooy sumbulu bàyyi tooñ baaxul boo nee nitu àll wax nga ñëpp ndax fii borom daraja yëpp ay nitu àll lay yàlla moom marsumaay moo leen def ñu jàngi ca dëkk ba marsumaay ñëw ba yàlla def leen lu leen def yow sumbul yow war a wax nit nitu àll dara gis nga nit balaa ngaa wax ci ay média da ngay xool sa bopp xoolaat sa bopp ba xam tranquille nga ngay soog a wax ndax li ngay wax àdduna ñoo lay déglu bu ñu déggoo la mu war a ñu lay saaga nit ñi di la saaga di la wax naka su lu noonu ndax waxoon rafet lu rafet yow benn émission wiiri lan mooy wiiri wiiri wiiri wiiri ku wiiri dana ñëwaat yow yemal sumbul sa xeesal bu mooy yemal waaw bu loolu weesoo nag maa ngi gërëm Sénégal yëpp Sénégal yëpp maa ngi leen di gërëm di gërëm waaw monde entier ñi feebar bi laal ñu ñu laal ñëpp maa ngi leen di sant di leen gërëm waaw te moom war nañu xeex moom mu jóge fii c'est la wax corona moo tax ñuy wax ndax ñun instant yi nii taluñu kenn corona la sallallahu alayhi wa sallam ni la demee woon dafa bëri ay noonu yaa ngi dégg billahi wallahi Macky Sall dóor ma xeetu dóor dóor ma def ma dara wër na Seydina Mohamed mais damay wax loo xam ne man gar naa sa doom Amadou Sall waaw en parlant sax di nuyu site site taalibe Bamba taalibe bu dul dañ taalibe maam Sera Fall na maam Sera ku gore yi noonu barki alxuraan ñoom maama Lamine ñoom ñëpp oh papa Sow c'est le meilleur billaahi wallaahi dafa doon nitu kese nitu kese si te ma leen lancé message yéen ñëpp ngeen fàttali ci feebar bi ni ñu du xeex ak moom waaw ak bépp say naataangoo ñi nga nekkal ak ñoom ñëpp war na maam Serapha maa ngi leen di woo ñu xeex ak corona jéem a jàppale Macky Sall mu xeex ak ba daan ko ndax lii bu ko xeexee moom ba daan ko ndam lu dul fay la waaw c'est la première fois deux mille dix neuf deux mille dix neuf lenn moo ci dekki muy corona corona ko ko waaw maa leen gërëm yéen ñëpp di leen sant ñiy wax ne nañ bàyyi wax yi ñëwoon ñëw naa nag c'est la première fois mu dugg deuxième fois bi ku waxatee dara billaahi wallaahi dama ko corona ku ñu daan ko billaahi wallaahi daal waxte nii danaa rokk seen digg yéen ñëpp laay waxal ni ñuy xeex gouvernement wala ñuy xeex naan cest à lii mais maa ngi léegi sax ñu naan ay corona c'est la politique mais pourquoi pas corona c'est la bu yàlla wàccee mais nañu xeexal moom pour dindi ko fi jaamu suñu borom nañ ko war a suñu invité doguma la ana lan ngay wax tey ci kii war a invitation bi muy euh, Pape Gueye. ah boo koy taanaan kulli fadlin barki maam Serap Fall billaahi le meilleur waaw c'est ñoo leen di gërëm ñun moom am naa lu ko def Fass Ba war naa fa dugg waaw voilà loolu am naa lu ko def merci c'est le meilleur.